jàngat bi dama ci ànd ak Ouzin euh, ginnaaw ni moo ko defee ak sëñ Basiirou borom mbég mectar mi Ouzin maa ngi lay siyaar. bàyyi yi maa ngi lay fay bu baax a baax. <laughs> tey ñu fas yéene waxtaanee écurie bi nga xamante ne bos ko saw bos ko Sow euh, nekk écurie boo xamante ne ay xale ña nga fa malgré euh, amul comme la may wax rek amul mbër yu mag yi ñu fa mën a tudd mais mun nañ jàpp ci Feu Euh, foofu la nekk bokk na ci mbër yu mag yi nga xamante ne mën nañ leen a tudd foofu tey équipe de Bosco Sow def euh, sept défaites ak euh, sept victoire ak treize défaites benn match nul benn match nul bi nag ki ko def mooy Sunjata moom moo ko def Sunjata Kayta moo ko def digganteem ak ki nga xamante ni mooy Kéwal mu doon làmb joo xamante ne ñu bari séntu wuñ ci woon match nul mais nag làmb moom ndam la. ak ak defet ak machine nul tey loolu mooy bokk ci défaite bi mais défaite bi dafa bari treize defet ak sept victoire vraiment ci équipe bu mel ni équipe ko Sow war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax seen taxawaay parce que loolu moom vraiment du loo xamante ni euh, mën nañ leen a wax bravo moom vraiment parce que euh, waroon ngeen a mën a am lu ëpp loolu waaye nag équipe moom noonu lay demee. Euh, bëri na ñaa ñoo xamante ne bu ñu nekkee yaakaar ci équipe bi bëree daanu euh, faw mu demee nii Ousin euh, ku ci mel ni Fourouz bëre na fa digganteem ak kii doomu dàngu. mu ne daaw loolu daaw la. Mhm. daaw jéeg daaw jéeg. daaw jéeg la. daaw jéeg kon Fourouz dafa année balance. waaw ren ren année la blanche mais njortoon na ni fi mu toll nii parce que ñu ngi doon wax diggante ma euh, ki dëkk Géejawaay Marle mais après combat bu mu jëwul antu ba Marle jël na dugg na biir foofu sax mais euh, dafa jël ki nga xamante ni mooy euh, njaaga bi waay merci Adama ni ko réel la jël mu doon combat boo xamante ni combat bu neex la tey nan nga gisee équipe bos Sow baa jili équipe bu ñuy lim palmarès yi di nga ci gis écurie yoo xamante ne seen victoire ñuy ëpp ñii seen victoire ak défaite di xaw a tolloo mais lii dafa jéggi dayoo est-ce que sept combats sept sept sept victoire treize défaites. est-ce que nekkul boo ko ci digg bi noonu ah, mais mais loolu. Mm-hmm. bi dafa mel da nga am boo ko xaajoon tey. Mm. boo jëlee victoire te ko ne day day day demee neneen palmarès daal ren baaxul xaw ma li mbër yu mag yi bëriwul la wala boo est-ce que nekkul euh, comme ni ko coach yi di waxee la daf ci bàyyi xale yoo xamante ne nii ay gan lañ ci làmb. ndax tey bu fekkee musuloo bëre nga bëgg nga bëgg bëgg feeñ wala boo bëgg a bëre tax parewuloo wala entraîné loolu doy ndax équipe bu toll noonu ndax boo xoolee kii di Farouz da daan génn am ay ndam daaw jee gis nañ malgré génn na mais am na am na am na défaite mm-hmm. mais ren euh, saison bi 5 mois la bariwul mais défaite yi dafa bari mm-hmm. war nañoo xool seen waaye kii kii di ki nga xamante ni tamit mooy euh, kii Sunjata mm-hmm. combat am ren bi kenn xàmmewu Sunjata Hmm. ñu bàyyi joxoon nañ ko fa diggante moom kéwél mais bi mu ñëw dafa téye boppam kéwél téye boppam combat bi saful dara. bii yoo xam ne du ko match nul. moom su jotee combat am dafa nangoo yàgg. Hmm. moom boo yàqamtee moom booy boo nga dem. wala bu hmm. a julli ji dama julli ji ba ñëw boo ñëw fekkaat fi su jotee yàgg. su jotee du bëree combat bu gaaw su jotee combat am dafay jël temps bu mu te loolu baaxul ci mbër mu ndaw. mbër mu ndaw dañuy séntu si yow nga ñëw xeex ba daan dem ñibbi loolu la ñuy loolu la gars yi di sawee ci yow mag hmm. ñoom moom loolu parce calcul bi day bëri mais mbër bu ndaw calcul boobu bëri hmm. ak ci koo xamante ne teg la nga ay série de victoire jóge ci ay Aliou sa hmm. combat yaak moom gis nga ñëpp gis nañ ni mu ñëw am kéwél te moom moo bëggoon kéwél kéwél bëggu woon bëri ak moom pour man su ñëwee mënoon na dérouler combat bi neneen nu dul nii wala combat moom Saalum Saalum combat moom météo tamit noonu dañoo xeex ba ñoom ñaar ñu niil ñu mag si niil. stade Iba Mar Diop la woon. suñu de combat war na xool ko déroulé parce que lii du du du soxla amateur yi ci moom. Mhm. am na public mën na fecc day andi ambiance boo xoolee bu defee open press nit dañuy ñëw mais combat chaque jour daal day xaw kii bu fekkee ki muy bëreel actiful wala ki wul ñoom ñaar seen combat dafay yàgg. Mhm. ni muy déroulé combat daal war na ko xoolaat moom suñu jota. Mhm. sànq yaa ngi wax ci biir xale yi. Euh, combat yi ñuy mën a jël te buñ jëlee duñ ci diisoo écrit yi. mu am loo xamante ni tey xale yi ñu ngi koy def lu dul yoon mais xale yi ñu ngi koy def ci côté bu baax parce que écurie yi ñu fiy tudd yëpp seen nombre de victoire bu baree xale yi ñoo ko fa yéegal mm-hmm. mais écurie fi ñu tudd yëpp seen nombre de défaite bu baree xale yi ñoo ko fa indi kon war nañoo xool yéen xale yi ban xar kanam lañu war a indiwaat ci làmb li njëkk mooy Soundiata tey bokk na ci écurie ko Sow ñi nga xamante ni boo tuddee Farouz di nga ko fa teg. Mm-hmm. léegi moom moomu tey bu demee ba combat bi nga xamante ni moom lañ yaakaaroon mu mat si nul diggante bi Farouz amee defet ci diggante ma euh, doomu dàngu euh, doog toog un an def année blanche bëriwaatul Soundiata ñëw am combat war a mën a relever defi bi far gis nga ni mu mën a ni mu mujjee demee ñoom ñaar euh, mu mel ni kon mbir war nañoo xoolaat seen bopp mais écurie bi surtout. entraîneurs yi ak dirigeants écrits yi ànd ñu fan lañ nekk. entraîneurs yi dirigeants yi ñoo ngi def seen liggéey. Hmm. mais day toll période boo xamante ni nii comme ni ko coach yu bari di waxee xale yi mënoo leen a hmm. ndax ku ci nekk di entraîné di entraîné sa koñ sa waa koñ dina laaj kañ ngay bëre kañ ngay am combat nga dem di jënd sa combat ba ñoo taxaw moo xam nga joxe fa sa xaalis wala moo xam say mbokk jàppale la parce xale yi ñu ci bari amuñu métier. Hmm. wala ñu ci bari seen métier wala mën a duñ ci mën a am loo xam parce que mbër day entraîné. day dem fay sëriñ. Mm-hmm. ah day dem di ñoom seen lekk ku ne xam na ni mu demee. Mm-hmm. yooyu bu ñu koy bëgg di def bëgg di dajale day xaw a metti seen mbokk bu leen dajalee xaalis wala dama ne ko promoteur bi su la nangoo tëggal combat mën naa la jëndal bologu bii. Mm-hmm. nga dem lijjanti loolu ba mu sotti nga ñëw ne coach bi am naa combat coach bi xam li ngeen di daj mënu la wax dellool combat bi wala delloo avance bi. da lay bàyyi nga dem bëre malgré pare woo man am na ci mbir moo xamante ni xam naa ko. bi mu jëlee combat. malgré dama koo yërëm xam mu na ko kii boo ko bàyyee bëri day yàq seen turu écrit hmm. ndax kii parewul te mu jëla ko mën fuuf hmm. mais coach bi mu xoolee dafa xam ne li ma ko wax dëgg la mu fexe ba nu mu yàqee combat bi hmm. te effectivement am na xale yoo xamante ni parewul mais bëgg nañoo bëri da ngay dem da ngay dem làmb taxaw abi sifflé booy bu ñu bëree nii la ñu def fii la teg seen garde te garde yaakaar naa nii la koy def dañ leen di dóor ba ñu bëgg a dee nga nga nga sonal say mbokk yàq seen xaalis boo paree ñu dem faj na la moo ko jar. loolu est-ce que du ñàkk a mbapat parce que xale yi dafa mel ni ñu ci bari ci làmb ji ay màgg bëre lañ on xale bu mën a bëre bu taxawee léewaatoo rek fer na gardam nga xam ne kii mën na bëre. baa ngi da gis xale bu ndaw du gis ci làmb. Mhm. da nga xool ak Franco donte yow du sa mbër xamuloo ko. Mhm. da nga ko xool Franco su taxawee léewaatoo am na booy bu dëkk baa ngi nan tuddee sax abooy. combat mujj bi dama ko dama koo dama koo seetaan. mais mu dugg si gis public bi ma xool ko mu nekk xale. mais keroog mu bëreeg manière boo xamante ni nii dama koo xool ba léegi dama koo jàpp fu ma ko gisee dama koy xàmmee. te dafa nekk xale boo xam te maa ngi koy nuyu au passage abooy ah xale bu mën a bëre la am public. Hmm. bàyyi ji boo ñëwee stade xool mbër mi xool public ba nga xam ne toppuñu ko pour bëgg a dem seetaani làmb. det dañ koo xam xam qualité am xam capacité hmm. te gis nga soo mënee bëre lu nekk ci yow. soo waa koñ dañ lay yéene. Hmm. parce que dañuy xam ne suñu la jàppalee nga dem. mooy li nga wax nii parce que boo xoolee journée idaale ñu nga bi mu tëggoon stade Diom Iba Mar Diop am na xale boo xamante ne mu ngi tudd Ibro bu Kër Mbay Fall. Hmm. Ibro moom it bi mu ñëwee bay ñibbi euh, mbooloo mi mu indi bi mu bëree bëri bu rëy daan di ñibbi damaa dem ba ci promoteur bi euh, idaale jàpp ci loxoom ne ko kii warul dem parce que hmm. mbooloo mi yëpp moom moo leen fi indi. xale bu toll nii indi bi te xamuñu ñii fan lañ ko toppee. promoteur bi ci boppam idaal yi mu may dégg moo ne ma jile kii fi ñu jugee dafa sori ñii ñu ngi jóge euh, Zowa ñu ñu ngi jóge Diofior ñii ñu ngi jóge Niodior mm-hmm. ñoo di soutenir xale boobu nga xamante ni su ma jumul boobu moo nekkoon première combat am arène mm-hmm. nga xam ni kon kooku am na lu mu leen wan ba tax euh, bu déplacé o mbooloo déplace Ouzin est-ce que xam nga ni mbër dina bëre grand combat du indi sax benn car stade mbër muy bëre combat spécial wala mbër muy bëre petit combat mobiliser indi plus de six quarts yoo xamante ne da ngay xam ne xale bii moo mérité woon bëre grand combat bi mais am na ñoo xamante ne nag moo tax loo ci gis xale yi tuuti rek la ñuy bëre ñaari combat ñett parce que seen mbooloo da leen di gunge pour ñu mën a bëre grand combat moo tax écrit yi ñoom ñi fa nekk ñëpp war nañu mën a xoolaat seen bopp ñoom ñi nga xamante ni ñoo diriger xale yëpp surtout mbokk yi pour ñu bañ a euh, génn débat bi rek ñu leen a xamal ñu ngi ci écurie ko Sow fa lañ toll di ci waxtaanee ci écurie ba ba tey génnuñu fa ndax dañ leen wax xale yi nekkin bi ñu war a nekk ci écurie ba tax na fi mu toll nii euh, ñoom ñëpp war nañ cee mën a jël leçon parce que tey ku mel ni Farouz ni ñu ko daan gisee ci làmb xoolal Ousseyn lancé bi sëñ euh, Farouz doon def ci làmb bu dugg see nga xam xale bi mën na bëre bu bàkkoo mu neex. su bëree mu neex. mais dañuy bëre caat daf maa hmm. parce que la mu caat caat waru woon bëre hmm. bi mu ko jëlee ay mbokkam te na ko kii doomu romam. Hmm. mais ba ñu ana bëggoon na tëj saison bi ak ak ak victoire wala bëggoon na cee bëre tax mu jël mais que Farouz da ne damaa bokk ci yéen. imposé boppam duma ko du muy metti. xeex moom daan ko ak manière. loolu andi Farouz ci lu mu nekk. mais des fois xale yi li may wax ak bëgg bëre da leen di dugal ci lu ne ndax Farouz. su daanee ñooñu mbër dafa am plan de carrière. Mhm. surtout du question waaw du question damaa bëgg a bëri wala damaa war a feeñ. tax na combat bu ñu la ko. Mhm. man des fois na mbër yoo xam te dama dañuy jël combat doonte tëgguma làmb faraluma leen mais dama leen di mere. Mhm. parce que nit da ngay am plan de carrière da nga ne tey fii laa jaar mais mënoo ne jékki-jékki jàdd croisement cambre jékki-jékki jàdd feneen déedéet fi moo tax a jóg. defal sa bu baax. na loo ci toog nga xam loolu toog na la ci. ñu am plan de lu baaxul bàyyi loolu mu jàll nga xool leneen. bàyyi xam na loolu du sa sens mais bu fekkee avance bu ñëw nga jël avance bu ñëw nga jël Fourouz boo xoolee diggante moom mm-hmm. moom doomu dàngu. malgré su daanoon doomu dàngu da da ciy génn. Mm-hmm. mais moom doomu dàngu doomu dàngu nee na kii du maag moom te bi mu ñëw da koo ne kii du maag moom. Mm-hmm. ndaw loo ko quoi moom ci doomu dàngu ni mu ko waxee. mais xam nga nit bu xasee am ndam lu mu la wax da koy gëm. boo xoolee Fourouz doomu dàngu am na ndam ci kawam mais gis nga xale yi li may wax chaque jour rek. du question ci équipe bi laa nekk damaa war a bëri tey. Hmm. Bosco Sow ay xale ngi fa dañoo am yaakaar ci ñoom. coach yi dañoo war a def leen du question ren am naa 15 combats wala 24 combats boo amee 24 combats am ci 15 défaites ah victoire am ci euh, am 24 combats am ci 5 hmm. victoire loolu du palmarès. Hmm. loolu xale yi bañ a bëri sax ko gën. téye xale yi di leen tàggat ba ñu ñëw xaw nga génne leen. ba boo leen génnewee képp ku bokk ci làmb ni kii fan la nekkoon. kii ana ay mbokkam. defe naa loolu bu ëpp importance promoteur dañuy sawar amateur fu ñu toll dañ koy laajte hmm. ñun ñi nga xamante dañoo bokk ci làmb di ko wax fu ñu toll dañ leen di hmm. parce que dañuy leen bëgg gisaat mais génn ay xale yoo xamante ni buñ ñëwee lootoo bi du baax yow mi nga xamante yaay seen coach yow la ñuy sikk hmm. parce que xale am na xale yoo xamante woo leen ñëw koo xamante ni jàngul na loo xamante ni tubaab dama ne l'homme qu'il faut à la loolu dañ ko war di def su ma ko war di def di andi xale yoo xamante dañoo ñëw xoom mooy war defet yi ngay gis yu bàyyi yëpp xale yi nga xamante ni parewuñ andi leen mooy war a defet yi daal bàyyi jiili. Hmm. am na solo parce que euh, suma papa yu Ndour doon wax wax ju am solo nee na mbër bu lëloo day màgg daan mbër nag bu lëloo day màgg daan du làmb ju ju xew rek nga jóg am na ci xale yoo xamante ni ñu ngi ci écurie ba te làmb am na ci ñoom yaakaar bëgg a bëre bu mu tax nga forcer làmb du jeex jëlal sa temps entraîner ni nga ko ni nga ko war a defee entraîner bu baax. di récupérer bu baax toog xaar boo ko defee boo duggee ci làmb ji boo bëree ñaari combat ñetti combat dinañ xam ne xale bii ñu muy bëreel du ay moromam Ama de gisuñu ko woon ci làmb waaye diggante bi muy bëre Ousseynou Ndiaye bëriwul grand combat bi combat spécial la bëre mais daa bëre ñibbi yóbbu stade bi mu jeex tàkk jour boobu maa ngi nuyu sama papa Bekaay Mbaye moo wax naa xale bii warul bëre petit combat kii mbëru grand combat la parce que moo tax deuxième bi bi mu waree bëre dañ koy jox kati deux xaw ma kati junior mu bëreeg moom grand combat moo lay wan ni làmb dafa am jéego yooyu def rek mën a yéeg ku ci mel ni Garga première premier combat am spécial la bëre ba mu bëree spécial première combat am moog Cheikh Diop bi mu daanee Cheikh Diop daf ko jaral mu ñibbi stade bi ñëpp ñibbi topp ko journée boobu Kandji production moo ko tëggoon euh, ñëpp jug topp ko ànd ak moom dem ñibbi keroog ba muy bëriwaat combat bi grand combat la bëre euh, muy digganteem ak njaaxum. Euh, xaw moo diggante mag njaaxum moo lay wan ni làmb mbër yi ñu ci bëree bëri ñaari combat la ñuy bëri yegg ci grand combat parce que li tax mooy dañoo lëlu entraîné ba mel ni ñu war a mel bëri ba seen i ci làmb adversaire boo leen jox dañ lay wan ni maa ngi yow làmb ñu boole rek kii hmm. hmm. promoteur yi ñoo foqati seen i ci seen i mbokk hmm. ne leen ñii làmb mbapat dafa doy ci ñoom ñoo dañ naan bëre mbapat ba naan kii lan lay defati ci mbapat mais xale yi léegi mbapatutuñ Hmm. xale boo ci wax danaa la drapeau yi maam mënul jeex wala boog drapeau yi su ma ko juugoon sama nekk day fees hmm. te koo ci laaj amul drapeau ndax drapeau léegi amatul mbapat amatul hmm. tournoi yi am xale yi doo leen fa gis xale yi séeréer yi nga fay gis ba tey ñoom ñoo fay nekk xale yi dañoo war di mbapat daay jiibi pourtant mbapat am na Ouzin parce que ñoom mbapat yi ñu bëgg mbapat yooyu amatul mooy mbapatu ko nga ne ñu boole la yow ak diw ngeen bëre loolu du combat mais làmb séeréer yi chaque jour mu ñu boo demee Adrien Senghor di nga bëre boo demee gaal gi di nga bëre boo demee bu fekkee nekk nga xale gëm sa bopp boo demee foofu bindu def ni say morom wane sa bopp mun ngaa am lu ne Garga Mbossé bëri na ay combat arène ba pare di bëri mbapat en même temps man seetaan naa ko benn combat église mu bëre mbapat mooy terrain eglise bu nekk Parcelles Assainies mu bëre fa euh, te dafa jugee ci làmb arène même pas une semaine xaw ma deux semaines mu jël beneen Ama Baldé seetaan naa ko benn terrain terrain cosaan diggante moom Jos Junior gis nga mu nekk làmb joo xamante ni làmb ju neex la loolu te teewul ba tey mu ngi doon bëre arène mu ngi dugg mu ngi bëre arène mais jaral jaral na ko muy muy muy bëre fii di bëre fële parce que boobu xale yi bëre lañ bëggoon Ama Baldé fi mu toll nii xam nga ni caaxaan bëre loowu ko. Hmm. pour Ama Baldé ñëw sa signature contrat sol blouson xaalis bu bari moo koy def li ko waral mooy mbër da nga am image boo xamante ne moom ngay wane image boobu boo ko sàmmul kenn mënu la koo sàmmal sa image nag yow yaa ko mën a sàmmal sa bopp écrit bi yow mi fa nekk ak say moromu naataangoo. li Ousin doon wax sax eh, keroog wax dafa am solo mun a kujje dafa am solo mais kujje gi nag du da ngay jël eh, kii waaye mais nit ki boo koy roy da koy roy ci lu baax xool ni kii mbër la champion la mu ngi daj ay coono naay daj coono boobu ñaq na du réer borom Ousin ma lay jaajëfal bu baax a baax lan nga bëggoon wax. di la jaajëfal bu baax baax di la wax ne dama dama li may wax chaque jour rek xale yi nañuy entraîné. Hmm. xale nañuy entraîné am naa combat ren daanu mais yamuloo foofu déwén nañu ñëw. Hmm. te boo xasee ñëw. am nga loo àndaale am na ñoo xam te ne bëgg nañoo bëre ak yow hmm. yow am nga foo xam te ne teg nga fa sa bët hmm. loolu nag li la koy mën a may mooy nga liggéey hmm. boo liggéeyee bu déwénee bu ñu ne ah bàyyi jiir mi lañ gisoon daaw ren de ko buñ ko gisaatee dañ ko war a gis ak beneen xaar kanam ñoo dafa juumoon wala bokk ma matéwul woon ren dinañ gis leneen loo xamante ne bokk naa la ñu gisoon daaw xale yi ni may waxee bu ñu xëyee di liggéey si fii ñoom làmbay seen métier dañoo war a xëy di liggéey doote dañoo war a am métier mais xale nañu xëy di liggéey bu gars yi xëy gàddu seen saak jëm seen i bureau hmm. ngeen xëy takk seen daal dugg ci géej gi dugg ci dini ñi dem ci saal yi dem entraîner am na solo ndax ñax kat du réew boroom de hmm. <laughs> dama dégg dem benn mag nee na foo gis ndawal rek am na lu fa dee kon nañuy nañuy liggéey. <laughs> foo gis ndaw rek wallaay dëgg la wallaay dëgg la euh, mbokk ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax jàngat làmb lañ ci àndaloon maanaam ak Baye osin Baye Jili ak Ousin ñoo ci àndoon euh, di waxtaan ci lépp loo xamante ne njariñu làmb la mooy souhaité bu baax a baax a baax joyeux anniversaire à soxna Suwaado Suwaado Koli sama xarit bi nga xamante ne macha allah borom Parcelles Assainies borom unité xale bi nga xamante ne macha allah bu daagoo bu neex. bu doxee mu neex lu mu def mu neex ma koy souhaité joyeux anniversaire yàlla na ma dund cent ans sans ordonnance ni consultation mbokk yi kon noonu laa leen di jaajëfalee ci jàngat làmb euh, ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb may sant bu baax a baax a baax Adama la cadreur des cadreurs jaajëfati maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy Zil Badiane boobu Pikine. exactement doo Ama Baldé. exactement kooku defe naa ni boo duggee marché zinc boo ko doon jaay di ko woo ñëw nga jox ko wàllam maa ngi nuyu bu baax a baax mooy woon Pikine doomu nday Saliou Khoule doomu nday Padros maa ngi nuyu bu baax a baax Zil Badiane doom tisi yi